jërëjëf euh, Abdou Thiam mi fare ci machine bi euh, gërëm may sa mbay mi nga xamante ni moom fare si euh, xarala bi ci digital bi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média ci kàddu gi Barthélémy ngoom ñu yegsi si seen émission penco nu koy defee waxtu wi bës bu nekk diggante altine ak ajjuma ajjuma mooy bës bu mujj bi ci émission bi ci semaine bi xam ngeen ko antenne libre lañ koy def rek ubbil leen ko ngir ku ci nekk xool la nga xamante ne. moo la ñor euh, te waxuñu ko ci antenne bi mën nañ ko wax sax nga dellu siwaat ci eh, ñu euh, teewlu la ci 88 te 628 14 14 88 628 14 14 allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Omar. Barthélemy maa ngi lay nuyu di la ziar. Omar daal ni ngay def ba njëkk dugg. ah yalla rek moo ko kii farlu liggéey bi rek affaire yi moom <laughs> nguuru Sénégal moo ko jarala waaw noonu la noonu la na ngeen def incha réew mi moo ma ko jaralan ko ak kuur gi na ngeen def sant alhamdulilah man tey Barté ginnaaw ma sant yàlla julli si yeneen peut bi sallallahu alayhi wa sallam ti ñaana sama ñaari waajur hmm. vraiment di jaale suñu maire tey vraiment moo génn àdduna hmm. mooy la maire de Bonkonto Bonkonto waaw nekk ci département Vélingara euh, département Vélingara hmm. foofu la woykat boobu dëkkoon mooy ku ñu wax Maayo Jaawo vraiment c' est la même commune. vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xaar ko aljanna ak la maire demet bu gaañu tamit dem ba suba. fële mhm. ci Fouta. Eh, tey dinaa ñëwaat ci ci jafe-jafe am fii si fula tu sais quoi qu'on se am na ay jafe-jafe yoo xam ne il faut ñu wax ko du question dañ ko wax pour contre état mais dañ ko wax pour ñaaxaat état gën a gën a góorgóorlu ci liggéeyam. Mhm. mooy li mel ni département de Médina Yoro Foulah. na Yoro Foulah département boo xam ne. pour gën la raison de mhm. mais côté infrastructure mais mun infrastructure. même le ministère de l'Agriculture, agriculture ministère de l'Agriculture, agriculture directeur euh, le DA qui euh, le Omar Sané. Mhm. même dem euh, même kooku sax def mission bu am solo la wax. pour la lu développement mais en tant que infrastructure routier yi quant à agriculture Mm-hmm. Eh, département bu bu ëpp protection laa la wax. Mm-hmm. nga dem si élevage ci la même chose mais bu demee ba côté infrastructure laa la wax amuñu ko vraiment ñu ngi fàttali son next la monsieur le président tous les sénégalais xam nga Médina Yoro Foulah man de dëkk Médina Yoro Foulah yàlla xam ne dëkkuma foofu loolu laa la wax mais dama koy dem toujours ñu ngi koy ñaaxa te fàttali ko vraiment Médina Yoro Foulah na ko gëstu na def conseil uniquement urgence pour développement Médina Yoro Foulah. Médina Yoro Foulah si Sénégal la bokk. Mhm. Ici à Kolda nak le président du conseil départemental le professeur Moussa Balde mu ngi la mu ci mën nag élection locale nag la jëm. Mhm. ku nek nak mu ngi sampay ndënam Moussa de mom mu ngi ginnaaw président de la république képp ku muy joxoñ la la wax kooku lay jappalé pour ñu mun gagner au la mais mhm. les élections locales fii au niveau de la région de Kolda et le département de Kolda. jërëjëf Oumar Sow jërëjëf jërëjëf Oumar Sow 88 628 14 14 ñuy xaar keneen salaamaaleykum. maaleykum salam waaw kooku Adja Soda. Barthélémy Adja waaw waaw Adja Soda ah, Adja Soda moom fuuri <laughs> ah temps yi ñàkk jot rek ak xawoon na siburu ba pare eh, léeg-léeg nag danaa dugg mais antenne bi nag léeg-léeg day day am ñoo xam ne classe foog Adama Dieng gi da ngay waaru daal <laughs> maa ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi lay fay bu baax Soda di nuyu équipe technique bépp di la yóbbante nuyoo ci El Hadj Assane Gueye d'accord d'accord waaw ah, di ñaanal sëñ Mountakha nag mu yàgg fi lool te wér mhm. ah acte bu mu def ci tabaski gi nii bàyyi leen nit ñi ñu ñëw wax seeni bëgg-bëgg. Mhm. ndax Touba day dëkk boo xam ne nii Barthélemy mm. dafa amut ay usine amut liggéeyukaay ay néew ju doole bëri fi lool. Mhm. kon bu defee loolu ci tabaski gi bàyyi nit ñu ubbi ñu ñëw wax seeni bëgg mu jàppale ci tabaski gi jàppale boo xam ne kenn mën la ko wax mook soxnaam soxna Bali. Mhm. dañ leen di ñaanal gudd fan ak wér ñu dund cent ans sans Barthélemy ci accident yi laay wax tey. Mhm. man nag sama njaboot la. waaye dëgg bu jotee dama koy teg ci taabali yàngoone. Mhm. du chauffeur si rek ñoo am problème. accident yi bëri na lool lool lool dee ji bëri na lool Barthélemy Barthélemy Ngom. Mhm. ay maire sax dégg nga fan ñi li dee ci ay maire kenn xamul nu mu toll. kon damay ñaan sëriñ ci jànkati alquran yi ak kilifa diine yi wax dëgg yàlla jot na nu génn dem ci jàkka yi. ñaan mu war a taw ba pare bat li mu taw te taw li mu ëmb dafa bari nawet mhm. bi heure bi passé na bu yàgg ñu dem ba mois de août te dégg ko benn taw boo xam ne ñun ci fii ci région de Diourbel bi kon damay ñaan ñu génn ñaan ñaari chauffeur dafa génn àddina ci ci ci accident bi xam nga loolu tam ñooñu ba ni xëyee seen kër. Mhm. maa ngi koy jàlle ku transport. ba ni xëyee seen kër kenn amu ci intention. faatu ca kaw tëli ba wala nga faat ay nit dangaa ñaan yàlla wàcce client yi dellu ca seen kër. Mhm. kon dafa jot réew mi moo laaj ñaan Barthélémy Ngom. na sëriñ si génn kilifa diine yi génn jànkate alxuraan yi génn tey ndimbal yi ñuy joxe ñu ci boole sëriñ yi daara yu ndaw yi. Mhm. jërëjëf Barthélémy nekkal ci jàmm jërëjëf euh, Adja Soda 88 628 14 14 88 628 14 14 tey ajjuma mooy euh, bés bu mujj ci émission bi ci semaine bi antenne libre lañ koy euh, def Abdou Thiam am na keneen. ci 88 628 14 14 ñuy xaar keneen kon. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. aha kooku. Alaaji Xaar Mbay Mbàkke Bool. Alaaji noo def. ñoo ngi lay jaar la ndokkeel baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ñaari sama ñaari maître yooyu man fi ma duggee xat na lool de. Hmm. ñaar ñi ma jiitu. waaw. Omar a Ajarat Sori Diagne. Hmm. xat na lool de dama sama ñaari maître. waaw waaw waaw. <laughs> ah ñu ngi leen ndokkeel baax di ñaanal waa RFM jépp. jërëjëf amin euh, ba tey. Hmm. yaa soodo li wax rek damay masawu euh, euh, accident am barki dem. ndax accident bi li ci gën a métti euh, man dafa nekk sama dëkk ndax Agnam Goly yi chauffeur bi Agnam Goly la dëkk mhm. boole ko yaayam di ko jur dafa nekk si biir oto bi ak ki nga xam ne moo jur soxnaam mhm. ñoom ñëpp di benn famille yàlla rek soxnaam xam loolu sag boobu kon famille la mhm. ñoom ñëpp yàlla daf ñu génn ci àdduna loolu muy lu métti dëkk boo xam ne lu mat quatorze personnes treize yëpp dëkk ci biir dëkk bi loolu accident bu gën a méttee noonu mosuma ko gis nee na li yaa soor wax chauffeur yi nañuy dallu boo sonnee boo gëmmantu boo jiwee dëkk tëdd fa nelaw mais naan kafe ak sënmu taxul chauffeur gëmmantam dañ hmm. loolu nañ ci dolli xel di ko boole ci code de la hmm. beneen bi ci def tey damay ñëw fii ci Mbàkke bool gi ma dëkk hmm. ba tey mi chaque jour yaa ngi dégg maa ngi koy wax Mbàkke mooy département bi nga xam ne amul benn département bu ko ëpp doole ci Sénégal parce que dañoo am dëkk bu kenn amul mooy Touba Mbàkke Mbàkke amul camp sapeur pompier Mbàkke gendarmerie bii fi nekk man damaa judd fekk ko fi maanaam euh, district bi fi nekk 1970 neuf ko fi defoon mhm. commissaire yi police bi fi nekk maanaam 1975 dañ ko immigré woon ba joon yaate ak dëgaatuñ ci beneen xeer mhm. amul benn infrastructure boo xam ne am na ci Mbàkke Bawol benn moo fi tàmbali mooy stade bi nga xam ne Abdoulaye Wade defoon na ko président Macky Sall joxe ko liggéey bi mi ngi demul dikkul. mu mhm. ngi avance sax waaye dañoo bëgg a bar kon bëgg naa président de la république Abdoulaye def na fi douze ans moom mu def fi neuf ans muy vingt et ans amul dara loo xam ne Mbàkke inauguré nañ ko fi loolu benn lycée su ma dégg naan def nañ fi lycée lycée dëkk boo xam ne ñu ngi jàng di am ay moyens di am ay kii c'est normal état def lycée mhm. mais amaatul leneen kon nañ dimbale Mbàkke jàppale ñu Mbàkke ñu suqali ko mhm. Mbàkke dafa paan autorité la paan parce que dama koy wax région de Diourbel sax laay naa am na bu mu amul waa Mbàkke mhm. ko boo ko waxoon dama ne boo ko waxoon avant tabaski naan kii day santas nangam nangam mais dañoo tabaski koo a wax mhm. nañ dimbale Mbàkke mooy ndaw man ku mhm. ko bëgg a dimbale ne ko nag gestu li ñuy di ko def naa Fuuta dem a doon gis naa lan def ci dëkk na ko def ci Mbàkke loolu laa moon ci wax di ñaanal Papa Diop ak Samba Ndiobenta d'accord yàlla yàlla yokk seen jàmm jërëjëf amiin jërëjëf Alaaji 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum allo salaamaaleykum aleykum salaam ok maa ngi nuyu Sénégal yëpp jërëjëf Xaadim min ok jërëjëf Bassirou mi nuyu naa Alaaji Assane ma gis nga ku ne sénégalais rek mooy te da bokk ci Sénégal danga war a bëgg Sénégal sonnal Sénégal dimbale Sénégal yërëm sénégalais yi. Mhm. nee na ña ku ku ku ku jur yërëm ku jënd sakkanal waaye ku bokk nag taxawu. Mhm. Euh, Macky Sall mooy président Sénégal. Mhm. mën naa la waatal ajuma dama jublu penku nii. man ànduma ak moom politique yàlla seere na ko loolu la ko Sénégal yëpp am. rafetlu ma yëfam cent pour cent déedéet ndax ku sonn ci nguuram laa waaye lu duutee nag nit kii mu dëgg bu fekkee nit day defar lu baax bu fekkee jullit nga maandu nga gëm nga yàlla doo du kenn du jël lu rafet masalan di ko ñaawal lu bon tamit kenn du ko rafetlu kenn du ko encouragé te da ngay dem ba seetlu ci biir nga yëg ne Macky Sall yey na Sénégal yëpp ci coronavirus yey na leena Sénégal bu mu mën a doon Macky Sall yey na la lu dul nag ci daara yi ak ci jumaa yi ndax bi coronavirus duggee rek Macky Sall daan nañ nekk siin bu ñu ñëw ah, ñu commencé attaqué ko te loolu la lislaam wax la sayyidina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam wax ci njàngale yàlla bi mu ñëwee fi mu juume ci aéroport bi hmm. foofu tam dafa échec aéroport bi waroon na koo tëj ci teel bi mu ñëwee mu def couvre-feu am na njuumte comme nu mu juume ci location yi parce que gungewu ko hmm. kon nag boobu Ousmane Sonko waxee sénégalais yi bu Macky Sall waxee nu mu tuddati dañ nañu confiné nañu bañ loolu yéen journalistes yi jël leen seen responsabilité da ngeen ko waroon wax lu loolu bu fekkee moom Ousmane Sonko dafa am kaddu ci Sénégal Sénégal yi dañ ko déggal jàpp na loolu mhm. dafa waroon wax yéen sénégalais yi coronavirus am na wala bu ko li ci position batal mu wax ko ne am na um góor gi sénégalais yi jël leen dimbalante leen bu mhm. confinement ñëwee nguur gi ñi ñuy confiné na xam ne ay miskin ñoo fi nekk mu joxe exemple bu leer mu génne sam ne la waaye bu nguur gi waxee nii nañu wax ne ne na ngeen bañ yéen journaliste yi man dama dama jàpp ne yéen tam jëlu leen seen responsabilité ngeen ragal Ousmane hmm. Sonko waaw <laughs> ah. non non loolu kay du question du question du ah, question ragal par exemple tey xam nga tey bu ma waxee fii lu dul noonu xam nga da nga may poñe ay jamono ci réseau bi nii damay woote am ko dewkan bu ma ne xaarimul xuraan rek wallaahi mu coupé ma ci biir hmm. ay jamono damay yéex a dugg basalan ba mu ëpp daal te damay nekk position bu baax a baax hmm. xam nga kon am na lu ngeen xam hmm. waaye réew mi dañ xam koo xamante ne bi war nañ ko fee ragal ba duñ ko wax dëgg mais du ñu yee fitna du ñu yee fitna réew mi ñoo ko moom ñaan nag ñaan ak saraxe mooy sauver réew mi de kon ñoom Ousmane Oustaz Mor Thiam yéen Oustaz yi li ngeen mën a wax oustaz Mor Thiam laa koy adressé laa wax. Mhm. lu ngeen mën a wax ak yéen Moustapha Guèye yéen ulama yi lu ngeen mën a wax nit ñi lu dul na nit ñi dellu ci yàlla na ñu saraxe li docteur yi di wax di ko wax te dañoo génne ñoom diina ji ci ci ci affaire coronavirus te waxu diina da koy réglé yal na yàlla defar lépp. amiin jërëjëf. ñu jàppale daara yërëm leen. Mm, d' accord jërëjëf Khadim 88 628 14 14. 88 628 14 14 antenne libre la ku ci nekk dama lay déglu rek euh, ci sujet bi nga xamante ni yaa ko sa bopp allo salaamaaleykum. Bakelin. waaw. Baye Ndoye Pire. Baye Ndoye Pire. waaw. na ngeen def Ndoye. naka liggéey bi. naka waa Pire. ana sun maire bi Ndoye Bane. Ndoye Bane mu ngi fi de. sunu we sunu raara bi jëm meewaan moom lañ koy xaarale kooku lañ bëgg a def ah, suñu maire bi comme daa bëgg a jël mairie bi kay yéen leen non dañ ko koy jox dañ ko koy jox leen ko moom la moom lañ ko koy yant ngeen jàpp ci nag da ngeen ciy jàpp de <laughs> da ngeen jàpp ça va ça va sant yàlla Ndoye man toujours ci transport rek laay wax mhm. liñ jooy ba tey jeexul accident yi ngay dégg yëpp yëpp responsabilité yi gendarme la mhm. oto bu ñëwee non damay wax damay oto bu jógee bu oto bu ñëwee nga monte quatre heures du matin nga nga ñëw xool chauffeur bi. Hmm. nga laaj ko permis carte grise ni ko fan nga jóge mu wax la hmm. délai bi mu jóg ak distance ba mu ngan ko ban heure nga départ mu wax la ko war nga ko ni droiteel oto bi. Hmm. mu nelaw bu doon une heure de temps sax bu njëkk gendarme yu njëkk yi daan nañ ko def. bu nelawee une heure de temps nga bàyyi ko mu dem mais ñoom seen yoon nekku ci loolu. Nyom lin chanm oto nyon ge kontrol etko amlokwe djapen ge djapen. Dono nou, daba amlokwem ni jandarmi nyon te wata djapen. Eta alim wata defen nyon lep defen akou. Sen saleri yokon akou. Pi sou euh, Afri Gep lini fay sou ni otorite jandarmi ak polis fay nyon ko ken. Yon demnen ti mani, demnen gine pisa, demnen tip. Eta mhm. alim wata defen nyon. Men li ti donen ki nyom la. Nyom le wata koul sin dikintek sin bonan ak lin sinye nyon mi nek ti djapen le populasyon. Pan nyom la yi kondane. Roubo kondane kou jandar Hmm. ñoom ñoo war a jàpp oto bu war a dew quatre heures du matin ko ni ko taxawal nga nelaw ñoom man nañ ko parce que dañuy fanaan ci tali bi te xam hmm. nañ oto bu ne bi nga départ heure euh, heure bi nga parce que reçu bi nga leen di woon def nañ ci heure bi nga départ euh, heure bi nga ëgsi ci ñoom waaw mais mais yenn saay tamit ma laaj la ndooy waaw oto boo xamante ne da ngay daw si tali bi si àll bi jékki-jékki gis benn camion sa kanam nga fël ne ne da ngay dépassé fekk am na oto buy ñëw sa kanam nga mbëkk kooka wala oto bu pan ci kaw waa rek wala oto bu baan ci kaw tali bi ngay daw guddi ba ñëw dal ci kaw oto boobu pan ci kaw tali bi ana ana ana yoonu gendarme ya foofu non xam nga déggoo li ma la gi nga nga loolu ngay wax noonu yow Bakhile mhm. état am na ci responsabilité xam nga loolu amee am na amee responsable oto fu mu paan mhm. oto bu sëgóori camion bu àgg ci montage wax na leen ni camion ba fa mu paan baaxul mais boo leen waxee du la faale loolu mën naa ko waaye oto bu oto mais mais problème bi problème bi mooy bari na ay oto yu paan si àll bi. ci digg tali bi ñoom. triangle de signalisation sax du ñu am euh, duñ ko am dañuy dagg ay xobu garab rek teg ko ci kaw. tali bi mais dañuy teg ci loolu yenn wul maanaam. dégg li ma la Bakhline. li ma la wax sa mm-hmm. bëri yaa may dégg dañuy teg triangle teg mais da ngay ba ci montage. doo daw am na ñoo xam ne du am na. te ku euh, ku da ku daal ñoom ñoo war man damay génn dakaar di dem am na ñoo xamante ne dañuy paan si diggi bi bi du ñu am triangle de signalisation teg dagg dagg xobu garab yi rek teg ci kaw ñaata ñaata brigade ñoo fi nekk fii ba Mali ñaata brigade gendarmerie ñoo fi ne hmm, dëkk boo dugg am na brigade ah, bari na waa waa léegi nag bu oto paane ñoom ñoo war a ñëw fanaan ci ginnaaw oto bi mais duñ ko def dañu dem continuer seen montage hmm. duñ ko def dagg li réew mi ñoo war a xoolaat seen bopp xool kenn ku ne yow am nga ay parents ñu jàppalante réew mi dem hmm. mais gendarme ak police daanaka liggéeyuñu dara ci réew mi dara lañ fi liggéeyu d'accord dara lañ fi liggéeyu et puis ceeb beeg dugub bi seer na ak courant beeg ndox mi nañ ñu ci état bi jàppale. Hmm. facture yi courant yi seer na facture yi ndox yi seer na. ñi hmm. ñaa ngi bëgg a dee. d'accord waaw yàlla baax na réew mi métti na nit ñi sonn nañ baadoole yi sonn nañ trop. waaw d'accord waaw. ok aha merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf Ndoy Chapir. 88 628 14 14 Abdou Thiam am na keneen salaamaaleykum. oui maaleykum salaam Barthélémy. waaw kooku. Sayer Tambédou. Sayer waaw na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. bien merci. mais naka journée bi mbaa ñëpp ci jàmm rek. ça va sant yàlla Sayer ñu ngi góorgóorlu. bon xanaa bëggoon wax ci corona bi rek. Mhm. ak ak vaccin yi. waaw comme moom def nañ ay point de vaccination yu bëri maanaam defe naa ñeent su ma juumulee ci li ñu wax léegi si rajo bi. Mhm. ñun nag ñu ngi doon sàkku si point marché yi jéem fa yokk yeneen parce que si biir secteur informel bi marchand ambulant yi ak commerçant yi daf si am ay troisième âge mhm. kon daal ñu ngi sàkku benn rond point Sandaga benn asalem beneen Colobane ak suñ ko mën a def rek comme ça jaaykat yi mën a vacciné wu mhm. comme ñoom ñoo gën a nekk priorité te ils sont exposés mhm. encore une fois may wax euh, jaaykat yi ak secteur informel ak jeunesse su Dakar bi yëpp surtout Dakar Plateau ay junni junni junni marchand ak ay tablier ñoom ñoo nekk ci secteur bi mhm. inscription yi commencé na depuis le 31 mhm. day jeex la 14 mhm. te comme candidat la ci mairie Dakar Plateau bi ak mairie Dakar bi gars yi dañu àndandoo ñu nekk benn ñun xam nañ ñi nga xam ne démb ñoo fi doon déguerpir marchand ambulant yi ak ñi nga xam ne joxoon nañ leen ay agence pour ñu jàppale marchand ambulant yi jàppalewuñ leen kon ñooñu tey suñu wëlbatikoo ne dañuy jàppale marchand ambulant yi encore une fois lank leen ñun ci dëkk bi lañ dëkk te më pare nañ am nañ yéene defar Dakar jàppale secteur informel bi surtout commerçant yi ak marchand ambulant yi na ñëpp jàppale Sayer Tambédou Sénégal pour ñëpp ma gañe mairie bi ma defar d'accord d'accord Sayer jërëjëf 88 628 88 628 14 14 Abdou Thiam am am na keneen ñuy xaarandi keneen ci euh, ligne bi ci 88 628 14 14 allo salaamaaleykum waaleykum salaam aha kooku maxtaar mbooj wakam tali monsieur mbooj waaw na ngeen def naka waa wakam yëpp mbooj waa ñëpp ñu ci jàmm Barthélemy jërëjëf ñu ngi lay déglu eh, Barthélemy examen bac yi ñëw na premier tour bi jàll na si jàmm ak salaam ñoo mhm. ngi ñaanal yàlla xale yi kan nga xam ne ñoo ci at mi nañ ko muurloo hmm, amin fekke njëriñ ni ñun ñëpp amin amin ñi échec nañu jàpp ni du seen yembar du seen tayel yàlla suñu borom mooy séddale. Mhm. te bind na lépp daal ñu judd ñu am. Mhm. kon échéance yi ñëwut déwén yàlla nañ ci yàlla boole ñu jàll te ñu muurloo ko. Mhm. amiin war dem deuxième tour. ñoo ngi leen di ñaanal ñu am dem ak concentration. ba ko yenu. parce que boo ko yenoo rek da sonal. surtout que sax ñu ñu choisir ñu choisir bu baax. Euh, matière yi ñuy demee deuxième tour. bien sûr parce que wax na léegi ñoom ñëpp. même si rajo bi dégg naa démb ku leen ko wax ni leen jël leen seen temps ngeen réfléchir ngeen xool bax choix yi ngeen jël attache professeurs yi ak ñoo xam ne am nañu expérience ñu examen de leen tour. Mhm. mais ñuy ñaan ci ñuy njaboot ak njaboot yëpp ci Sénégal. Mhm. yàlla na yàlla jàppale leen ba ñu génn ba ñu jot ci banque bi te ñu muurloo ko. te Sénégal jëriñoo ko ëllëg. Mhm. ñi ngay xam ne ñooy encadré xale yi si bureau di leen recevoir muy correcteur yi muy ñu leen di encadré nañu jàpp ni seen ay njaboot ak seen ay élèves ñoo nekk en face de ñoom. Mhm. kenn waxul kenn jàppaleel kenn kenn waxul kenn jàppaleel kenn muy tricher mais nañ leen jàpp ni seen ay njaboot ñoo nekk seen. Mhm. Barthélemy kon yàlla na yàlla def jàmm seen. loolu weesoo. amiin mhm. Covid bi dañuy ñaan président Macky Sall. mu fexe ba jël fi njaayum euh, masque yi.

mais legi ñun di leen indil masque yi yomb leen ko pour taxaw rek am na ku fa taxaw di joxe ay masque ku tagul masque kon yaa bañ nekk masque lu le sa tekk yaa ko teg sa bopp Batri mi nyong nyan jamu ci rew mi Jerejef Yalla may ñu nawet jamu ak salam bu sëñ bu bu am la ben yaq yaq Amin bu jerejef jerejef Yendok jamu ak salam Yendok jamu bu wakam 88628 salam Alaykum ah. salam koku Bartelemi ma ngi lay eh, Saint Louis Saint Louis ha ah. ya yow waaw imaam Cheikh Yaxya Diallo. imaam Cheikh Yaxya Diallo. waaw di la gërëm bu baax. jërëjëf imaam naka waa Ndar yëpp daal man ah, damay xaw jaaxle sax ci mbiru accident yi. Mhm. ndax ah, li ëpp solo ci liy causé accident yi dégguma ñu koy wax. Mhm. looloo tax sax ma insister léegi pour. Ah, woo la waaw. ndax xam nga ni quatre-vingt-dix pour cent yëpp contrefaçon pièces yu bon mooy indi accident yi. pièces yi ñuy changer ci oto yi nga xam ne tey jii da ngay dem gis benn rotule bi nga xam ne ñun mun ñu jaay la ko à deux mille francs mhm. fekk rotule original ba ma ngay jaar sept mille mhm. ñu jël ko def ko ci oto suñ ko defee ci oto bu oto bi dawee bu mu yàgg bu rotule bi roccee ko rek direction bi chauffeur bi dootu ko mën a téye mhm. bare na accident yi nga xam ni loolu moo koy causé ak ay euh, xëy na mun na am contrôle bu bon mu ngi ci parce que am na oto bi nga xam ni daañ ko jox visite technique fekk na boo yëree ci biir oto bi sax gis weñ yi génn nag euh, ni oto bi mel. Mhm. nga xam ni kii kenn waru ko jox visite technique. parce que oto am na état bu muy toll da ngay dem defar ko. Mhm. da nga koy defar bu mu baax nga doogaa ñëw ñu jox def examen ñu jox la visite technique. Mhm. man daal ma xalaatoon ni ni ñuy xeexee médicament de la yi. bu ñu ko xeexee woon pièces yi nga xam ne ñooy jóge bitim réew du ñëw te di ay pièces yu bon. accident yi dana wàññeeku. lii daal gis naa ni daal. bu euh, buñ ci taxawee yàlla mun nañ ci defal sutura parce que non seulement xëy na actuellement maa ngi présenté wu comme bu imam mhm. mais dawal naa taxi interurbain dawal naa taxi urbain def naa ci ci ci ci ci ci métier bi trente trois ans mhm. musuma fàttaliku fu ma accidenté ma ciy sant yàlla nag mhm. ma sant yàlla dawal naa Dakar Saint-Louis euh, te lu nekk dal na ma ci waaye daal li may woo sama naataangoo sama maire mhm. muy monsieur le ministre eh, côté boobu daal nañ ci seet mhm. waaw nañu seet pièces yi nga xam ne mooy pièces yi bon yi dugg fii ci Sénégal te léegi dañoo bare dañoo mm. bare dañoo bare da ngay dem ci jaaykatu pièces sax mu génne la ñaar yëpp tegal la mhm. ni la bii nangam lay jal bii moom nangam lay jar bu dee mécanicien bu ragalul yàlla dafay jënd boobu rek parce que mécanicien yi tamit xale yi rek la ñuy rek nga ñëw bàyyi fa sa oto dem doo contrôler ñëw fekk na changé nañ la yëpp ñun la baax na mm-hmm. nga génn dem sa yoon mm-hmm. xam naa chauffeur yi xam nañu lii may wax xam nañ ni oto def na dégâts ba tàyyi ci ay pièces yu bon mm-hmm. ah yàlla yàlla def mais ñoom koy kuy jënd pièce kay moom ah. mën nga mën nga ànd ak mécanicien bi ngeen dem rek surtout te te encore parce kay jaay pièce kay jaay pièce na xam na bu ci gën aha xam nañ ko mhm. xam nañ même yow mi nga xam ne yaa moom sa oto sax bul dem garage bàyyi fa sa oto dem mhm. yow taxawal di surveiller di xool yan pièces lañ lay lañ lay defal mhm. mais malheureusement tey jii man gis naa lu mot ñeenti accident yi nga xam ne bi ñu vérifié seen routine dafa dañ euh, man man man mi changé naa benn croix croix alternateur euh, changé naa ko même pas trois mois croix bi dagg heureusement ba du ba dugguma autoroute à péage bi maa ngi woon booru Tëngéej mhm. fa la croix bi dagg mais indi na ma problème bi nga xam ni keroog laa ni man dootuma jox mécanicien mukk mu may jëndali pièce mhm. waaw maay dem ba seet pièce bi nga xam ne original la ma doog kaa jënd nga doog kaa waay jërëjëf imam Cheikh Yaxya Diallo accident yi jërëjëf tamit yal na ko fi yàlla jëlee amin amin jërëjëf jërëjëf imam Yaxya Diallo euh fofu lañu yem abdou cham waaw euh, abdou cham neena ma waxtu wi jeex kon nak mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax yeen ñi wote jox ñu seen xalaat euh, ci tam yi nga xamanteni yeen ak tanaloon seen bop noné lay démé aljuma antenne libre la ñu ngi leen di gërëm bu baax baax bartelemi ngom la won ci kaddu gi abdou cham ci machine bi may sambay mo nekkon ci euh, xarala gi mbokk yi jere jëf ñu yendok jam assalamu alaykum